jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu ci m TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. jërë ngeen jëf mbokku internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bile xibaar yi Seydi Gassama njiitu Amnesty International daal nay wax kon kàddu yi nga xam ne njiitu réew mi yëkkati na ko daal di koy jagleen nag presse internationale bi nag mu ni ñi nga xam ni duñu def rek ay publi reportage duñu nekk rek lu dul ci njiit ñi rek kon di leen ŋàññi saa su nekk mu ni loolu itam nag lu doy waar te lu ñu rafetluwul la benn yoon yoon ginnaaw fukki at ak ñaar kon mu def ko ci bopp réewu Sénégal lu ci ëpp ñu nemmeeku ci rek ay violence jëm ci kujje gi ci activiste yi ak ci journaliste yi tey jile kon munu institution bi soxlawul loole benn yoon ndax nguur nag na muy doxee mooy daal di defar réew mi teg ko ci yéen yoonu démocratie rawatina ci Afrique gile ak itam république bi nga xam ni moom la ñu yore muy Sénégal. Aminata Touré moom mi nga xam ni kon rek dañ ko génnee ci élection présidentielle yi te mu nekkoon rek kon euh, candidat waaye ginnaaw rek lu ñeel parenage bi ci lañ ko daal di génnee mu ni nag moom du dem benn yoon rek ci concertation wala dialogue ak lu mu mënti doon rek moom loolee la xam xamle mu ni kon njiitu réew mi bu ko ci xaar ndax du ca dem te kenn du ko fa gis nag moom ba mu ci rek daal di wax ndax jàpp na ni loolee amul benn sens te itam loole kon moom yoonam nekku ci ba dialogue bi daal moom mi ngi toog rek di seetaan.